L'actu sur King FM. Mesdames, Messieurs, euh, bonjour. Voici les brèves que nous démarrons avec la campagne de sensibilisation sur la hausse des prix de l'électricité. ça, le collectif organise une distribution des tracts cet après-midi. A rappeler que samedi dernier, des membres du collectif ont été arrêtés alors qu'ils distribuaient des flyers et ont été retenus durant 48 heures de garde à vue euh, dans le secteur de l'éducation. Il y aura encore des perturbations. Les syndicats membres du z 7 décrètent un devrait aujourd'hui, mercredi, suivi d'une grève totale demain jeudi. Les enseignants du moins secondaire exigent la matérialisation des accords signés avec le gouvernement. L'exclusion de Mustafa Diarate euh, dans la paire, le président de la commission de discipline motive sa décision. L'ancien président du groupe parlementaire de Benno Bokoyakar parle de provocation. Ainsi, il fera une déclaration ce jeudi euh, pour parler euh, sûrement sur cette décision le procès entre Walisek et Hassan Sissi a été évoqué hier au tribunal de grande instance de Dakar. Il a été condamné à payer à Hassan, fonctionnaire international gambien, 11 millions de francs CFA avec exécution provisoire. Euh, selon les échos qui donnent l'information, le chanteur n'a pas respecté ses engagements au sujet d'une villa qu'il lui avait vendu à Norfoire Sport le tirage au sort des 10 poules pour les éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2022 a été effectué hier au Caire. Le Sénégal figure dans le groupe H en compagnie de la Namibie, du Togo et du Congo, un groupe jouable pour les Lions selon plusieurs spécialistes du euh, football. Pour la musique du jour, nous vous proposons Woz Kali dans son titre là un morceau sorti le 8 août 2014. Écoutons.

la version Olof de ces brèves c'est dans un instant yéen a ngi déglu King FM xibaar yi tënk lay doon dañ koy tàmbalee kon ak euh, ñoo lànk ñoo bañ ñi nga xam si kon ñi ngi wéyal seenu xeex jëmale ko ci njëgul courant bi nu yokk ngir ñu wàññi ko ñoom nag nee nan tey jii dinañ amalaat am séddale track euh, tey ci ngoon bu ñetti waxtu jotee ñu fàttali ni sax ni ki samedi bi euh, weesu ay membres yu bokk ci boobule collectif dañ leen a jàppoon ci ay fekk boobu kon dañ doon séddale ay flyers taxoon tamit ñu daal leen téye ci ab garde à def nañ fa sax ñaari ya, fan eh, ci walum jang ak jangale mi tay ji tamit dina amat ay benki jenké sabab li dikon di kon syndicat yi set ci G7 ab débrayage la amal tay ci alarba ji ëllëg ci alhamis yi mom du ñu fas ci ak moromam grève total la def enseignant yi nak di kat yi bokku ci eh, yu ak yu dugg doomu yi li ñu bëgg moo di ne kon gouvernement bu Sénégal respecté li ñu mon ak ñom Moustapha Diakhaté dàq nañ ko ci APR njiitul commission de discipline ba moom li mu daal di xamle moo di moo def la tax ñu dàq ko moom mi nga xam si tamit moo fi nekkoon président groupe euh, parlementaire benn Bokk Yaakaar nee na gars yi dañ koy provoker waaye suba dina def déclaration ba ñëpp dégg ko procès bi doon ndox ci diggante Wally Seck ak Assane Cissé démb la ko tribunal grande instance bu ndakaaru leeral dafa daal di daan kile di Wally sekk lu toll ci fukki million ak benn ngir mu jébbal ko Assane Cissé mi nga xam ne kon ab fonctionnaire international gambien la euh, bu ñu sukkandikoo ci les échos mi ñu baaxee xibaar bi nag euh, Wally Seck kon dafa respecté wul ay engagement yoo xam si jëloon na ko ci ko waa ji ci kon génn kër goo xam ni da koo ko jaayoon na tàggat yaram euh, tirage au sort bi nga xam si ñu ngi ko doon amal ni ki démb ca Caire jëmale ko ci éliminatoire euh, coupe du monde 2022 ci déndu Afrique Sénégal léegi kon ñëpp xam na ni ci groupe H la daal di bokk Namibie Togo ak kongo la ca àndal ñu bëri tey xeltu ci wàllum football nag nee nañ kon Sénégal poule bi mu nekk baax na tey favori la ca musique la ñuy jeexale tënku xibaar yi tey woskal yi lañ leen andil ci woy bi mu duppee li may tere nelaw juróom-ñetti fan ci weeru août atum 2014 la génnoon ñu teewlu. wahla limeterenelau Haritu kai modil limeterenelau kai nyudi soma wahla limeterenelau ñu noon mbokk yi lii tënk la woon ci ay xibaar yeneen tënku xibaar 8h30 lay doon waaye léegi lay kon ak Ndiaye mooy wëyal The Morning King. et ton coup de cœur musical je pense que c'est un ancien de groupe Missal ah. avec ñoom Samba Laobé Niang ak yooyu de la Patte d'Oie ils étaient excellents. exact voilà et toujours aussi Wiz Wiz. Euh, voilà c'est Wos Khali voilà Wos Khali est excellent ce titre là terrain la moom xam naa dinañ ko teg suba ah <laughs> ah affaire bi dugg nañu. macha allah mesdames et messieurs c'était l'information sur King FM. Rejoignez-nous sur notre Facebook, Twitter, Instagram, KingFM.